الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين mbokk yi dina am sant sunu borom ñu ngi jël sëlmal ci ab yonente Muhammad salawaat rabbi wa salaamuhu alayhi loo ngi ñaan sunu borom bu fekkee dëkk ci waa xéewal yonente bu ko saxaaba radwanallahu alayhim ajmain mbokk yi nga xam ne sunu borom day subhanahu wa taala boo leen baax ku bari ay xéwal la waaye ku bari ay yërmande la bind ñu ngir bugal nu waaye daf noo bind ngir yërëm nu te loolu mooy li mu ànd wax ko ci téeréem bu jant bi borom bi subhanahu wa taala dafa jagleel ñi gëm yàlla ci ay neeti jagleel yoo xam ni jagleelu ko woon sax xeet yi nga xamante ni ñoom ñoo jiit woon islam sunu borom subhanahu wa taala dafa jagleel xeet bii di xeet islam bi ay jagoo yu bari yoo xam ni jagoo yooyu yenn yi ci def beneen moo ko jagoo yi ci des xeet yi ñoom ñoo ko jagoo al imam al allaama as-San'aani yegg na ba yoon ni sax jagoo yooyu yegg na ci juróom-ñaar am ci borom xam-xam yi mu ni jagoo yooyu àgg na ci ñaar téeméeri jagoo yoo xam ni yenn yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jagoo yi ci des xeet islam yi ñoo ko jagoo dëgg la xeet yépp ci jiitu woon day ak seeni yonent yépp bu ñu dajee sax àllaaxira xeet bii mooy nekk seeni seede waaye ñoom la ñuy njëkk àtte bu dee tàbbi àjjana ci biir xeet bi ñoom ñoo koy njëkk a def ndax lii lépp wér na ci xadis bàyyi ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam xeet bii nag ci xeetu lislaam bi suñu borom daf koo defal ay mbir yoo xam ni mbir la yu kéemtaane yoo xam ni xeet yu njëkk yi waroon nañ ko tàmbali jiitu waaye suñu borom daf leen koo dencal ba ñoom yegg ci xam ngeen ni suñu borom dafa dimbalee xeet wi ay occasion yu rëy yoo xam ni ci gëm yàlla mën na caa profitoo maa ngi ci ay tiyaaba loo xam ni nit mën naa dund ay at at ci jaamu yàlla ci ay jaamu yàlla bu toll noonu buñ ko doon joxe misaal boo xoolee bis bu mel ni ci sax arafa nga xam ni benn yoon day am ci at yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ku ko woor day bu la ko yàlla nangulee dinañ la kafaaraal sa bàkkaar yi daaw ak sa bàkkaar yi ak ñii di bëgg a ñëw loolee laa sax que ni lu rëy la jëral bis bu mel bisub Ashura wala wala Ashura muy tam xarit nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf koo woor muy maa ngi yaakaar ci yàlla woor ko day day kafaara bàkkaar yi ak ñu weer tëral ci weer yi nga gis benn weer wu ca nekk bu ñuy wax weeru koor nga xam ne weer yëpp moo leen gën te weer woowa nit mën na caa màgg ci aw yiw loo xam ne nit mën naa dund ay at yu bare bare bari ci koor soo xoolee ci biir weeru koor ci la guddi bi ñuy wax laylatul xadr nekk laylatul xadr suñu borom ni laylatul xadri xayrun min alfi shahr laylatul qadr xayrun min alfi shahr guddi laylatul qadr moo gën junni weer ah alfi shahr junni weer xoolal ay weer nga di ko wàññi lu muy junni ñu ne la laylatul qadr moo ko gën bi maanaam dafa mel ni benn laylatul qadr bu ko yàlla nangul mel nga di koo xam ni dund nga lu ëpp juróom-ñetti fukki at yoo xam ni yëpp dañ koo taxaw di jaamu yàlla xoolal lu ñu réyee maanaam weeru xadar bu fekkee nit ki am na ko benn yoon ñu ne weeru xadar jooju kat ñu ngi mel ni yow da ngaa dund juróom-ñett fukki at yoo xam ne ah ak ñett wala lu ko loo xam ne dañ koy jaamu yàlla parce que maa ngi yaakaar ne ci am ñaari weeru xadar wala ñett weeru xadar boobu dëgg yàlla say jaamu yàlla moo mat say ci yàlla jël lu mel ni àdduna nga xam ni borom subhanahu wa taala koo def mu nekk occasion boo xam ni ci semaine bi la nekk benn yoon lay ñëw ci semaine bi waaye mangaari ci ay jiyaaba yu rëy ndax yéen yàlla bi nee na aajuma wa aajuma ci dellu si baax dafay kafaara say bàkkaar bu dee yaa ngi mooy nit bàkkaar yi aajuma joojee wax leen ci ay mbiram moo nekk suñu xutbay tey bu ñu àndee déglu saa bi ñu jàng daan muy surtout jumaa suñu borom bi ñu ko tuddee aajuma ajuma nag ci biir lislaam tuddul woon ajuma maanaam aljuma tuddul woon woon loolu comme ni ko borom xam-xam waxee al imam Tabarani rahimahullah ni ajuma day lu jiitu ak ñeneen ci borom xam-xam sax wax nañ ko lu jiitu lislaam dañ ko doon tuddee al aruba al aruba wala arab yi tuddee ajuma xëy na ñenn ci ñi nga xam ne ñooy ay bindika yu nekk ci réew mi boo déggee ne seen da ngay dégg ñu ci loolu di wane ne alaara boo fekk ñu ngi ci am ajjuma ajjuma loolu du ci islam bu alaaru ba wax xam-xam dañuy wax ni ci ko njëkk a tuddee ajjuma mooy Kaab ibn Luwayt Kaab ibn Luwayt maam la woon ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañoo wax ni moom mooy njëkk a tuddee ajjuma ajjuma waaye moom moo njëkk a dajale nit ñi ci Kaaba bi di leen waa ak di leen fàttali bokk na ci lan ngeen doon waaree di leen ko fàttali mooy gis ngi ñëw ci nit ñi ne yàlla dana yónni ci xarub bii ñu nekk xarubu Makka ak waaye bu ñuy wax Muhammadin alayhi salaatu wa salaam te kooku mooy ne mu jënd lu yaram tey ci sama xeet lay bàyyi ko sama askan na sama ñeen man lay bàyyi ko mu kaa am loolu loolu nag amaan na ñoom kay jàngal nañ téere yu yëpp yëpp gis na ca dawaa la xam ne Injil wax moo tax ñu xamee loolu su ko defee doon wax lu mel noonu Covid bi jógee gis ngeen ko ay at gannaaw ba Abdul Muttalib ñëw daal di tudd Abdallah Abdallah bi nga xamante ni mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam. ajjuma nag mbokk yi war a xam-xam ne li tax ñu tuddee ko ne ndax de ci la yàlla yembalee bindum aada parce que loolu wér na waaye ndax loolu kese moo tax ñu tuddee ko am nañu wax am nañu wax xam ngeen bisu àjjuma ci la suñu borom yembal aadama ak mbindam yem mu def ko ñii mu mel mu nekk juróom-benn suñu xasab yoon lool yor lool melokaan bi nga xam ne moom la doomu aadama yore yeneen borom xam-xam yi ñu tax ñu tuddee ko àjjuma ndax mooy bis bi nga xam ni ci la yàlla dajale aadama ak xawwa ci kaw suuf xam ngeen suñu borom bi wàccee aadama ak xawwa ñu jógee ca àjjana wàcce noonu benn barab aadama dafa wàcc fële xaw a wàcc fële loolu xëy na nga dégg ñu ciy wax ay wax kii yëngu wàcc tey kii wàcc nga ànd ak wàcc Arafa kii wàcc Inde comme ni koy waxee yooyu ay wax loolu yoo xam ne daal dafa am secteur yu koy taxal li tax Allah ba wàcc ñu leen balaa ñuy dox ci daje ginnaaw ñëpp ci fan bi daal di gisante gis bañ gisante mu ngi tombé woon gisu aajuma aajuma yi déedéet li tax ñu tuddee ko aajuma mooy li daje ci gis ay gëneel dafa bari moo tax ñu tuddee ko gisu aajuma ba léegi bokk na ci ay tur yow mën bi ndax bu demee ba àllaaxira ba ñuy tàbbi àddina tàbbi fa yàlla suñu borom boole la nit ñi day soppeeku bu ñu tudd yow mën bi yow mën bi lahum ma yashaa'una fiiha wa ladaynaa maziid yow mën bi mooy li borom nga xam ne ñu def aaj wala ñoom ca àjjana borom bi subhaanahu wa taala di ca yendeeree ñi nga xamante ni ñoo ñu gëm yàlla ca àjjana yàlla suñu borom boole ci kon àjjuma gis la bu mag gis la bu waaye duñ ko wax ñu bari dañ ko neex yonente alayhi salaatu wasalaam wax na kay xadiisam mu ne xayru yawmin talaat fiihi shamsu yawmul jumaa bis yi nga xam ne jant bi mas na cee fekk ba ca gën mooy bisu àjjuma te xadiis bi imam muslim solo la ko abu daawud solo ko yeneen yu moom mu ne fiihi xuliqa aadam bis boobu ci la yàlla bind aadama wa fiihi udxila aljanna te ci la ko yàlla saabal àjjana wa fiihi uxrija minha ci la ko yàlla génnee àjjana ñeen ci bis ba léegi te it am na beneen riwaaya boo xamante ni ñëw ci muslim waaye wér na muy wa fiihi fiiba aadam te ci la yàlla aal aadama te fa demee bàkkaaram boobee ah wa fiihi taqumu saa te it ci la àllaaxiray am moo tax yonent bi teg ci ni amul benn bis àjjuma lu dul rab yëpp dañuy déglu ak wéy na leen lool ngir yaakaar ci bis boobu ca la àdduna yi ca la àllaaxira bi taxaw nit ak jinne rek ñoom ñoo faale loolu xadis bu xadis la bu màgg muy wane ni kon àdduna bis la bu rëy bis la bu màgg ci la yàlla sàkk aadama ci la ko dugal àddina ci la ko génn ci la ko xaar ci la ko wàcc ci kaw suuf tey ci la àllaaxira yi taxaw kon loolu su ko nit ci yégee day yëg ni ko bis bi kat bis la boo xam ne jagleel nañ ko ay mbir yéen bi alayhi salaatu wasalaam mu ne yéen daal su ma leen doon misaal ak xeet yu njëkk yéen yahud yeeg nasaara yi mu ne suñu waral dafa wàcce bis bu ñuy tuddee samedi ak dimanche ak ajuma war leen a jiitu mu ne suñu waral réalisé na leen ajuma ñi nga xam ne ñooy yahud yi jël samedi ñu nekkul yahud yi muy nasaara yi jël dimanche te ajuma leen waroon a jiitu mu ne suñu waral réalisé na ko làq leen ko ba ngeen yegg ci yéen xeer yi mu daal leen koy jox te loolu nag dalika fadlullahi yutiihi man yashaa di ngeen ci saa wi wallahu dul fadlil azim suñu borom ku bari ay ngeen la kon ajjuma mi noonu ak ay mbiram ak ay gëneelam ajjuma nit ki su fekkee jaar na ba nga xam ni foofu mooy programme bi judd a jaar ci ajjuma dañ koy garantir ak jéggalu bàkkaar fii ba ajjuma ji dellusiwaat wal jumaatu ila jumaa kafaaratu lima baynahunna ida jtunibat al kabaa'ir comme ni ko xadis ba waxee julli juróom ba julli juróom day kafaare bakkaar weeru koor ba weeru koor day kafaare bakkaar ajjuma ba ajjuma day kafaare bakkaar yu des li nga jël kabaayir boo moytoo bakkaar yi mag yi dañuy jabar ak rey bakkan nag yu demee noonu nga xamante ni yooyu kat moom ak tuuba boppam la di laaj kon mbokk yi ajjuma gi noonu bis la bu mag bis la bu rëy al allaama ibnu Qayyim rahimahullah mu ni borom bi subhanahu wa taala bopp na ci lim jagal leen xeet bi mooy daf leen def ñu ñëw ci jamono ja nga xam ni mooy jamono ju mujj waaye yàlla sommel leen ak yonent bi gën ci yonent yi ñoom ñu nekk xeet bi gën ci xeet bi suñu borom jagleel leen ci ay jaamu yàlla lu gën la ñu njëkk ñu doon def mu ni noonu leen di toppee ba keroog ñu tàbbi àjjana du leen wàcc yàlla suñu borom boole ci ñoo kon ajjuma mi ngi noonu su ko defee yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na ci ajjuma ay mbir yu bari yoo xam ni boo xoolee vingt quatre heures julli ci ajjuma am na ay ndigal ak ay tere yu ñu ko wax yu ndigal yu ñu ko digal yoo xamante ni bu ca góorgóorloo kat mangu yiw ba ñuy mangu sàkkoo mangu ci àjjuma moom dana ko am bis ci lislaam mbokk yi mi ngi tàmbali ci timis bis ci lislaam mi ngi tàmbali ci timis loolu ko jullit ñëpp xam amaan na ci àtte ci gisul ay jullit ñoom ñooy yoonal bis ci tàmbali jën bi loolu lislaam xamul loolu islam xamul bis buy tàmbali nit ñi déedéet loolu moom mbirum yéefar la bis ci islam mooy tàmbali ginnaaw timis loolaa tax bu ginnaaw timis jotee ñu ne weer waa ngi ne feeñ na dañ naan seen yàgg ci koor dëgg la woon ko waaye ci koor bi rek dañ koy jiital looloo tax bu ñu wooree ba woon ñu ne weer waa ngi ne feeñ na nga jàpp ni génn nga ci koor bi jot suba bi du loolaa tax bu doon juddoo bu timis jotee jot bu ñu toogee tey ci àjjuma ji ba timis jot ñu julli ko ba noppi doom ju judd ju nekk judd woo àjjuma waaye xam nga ji loolu dañ ko bàyyi xel ci wàcceel islam noonu la te jigéen ñi gis baax noonu la ci jigéen buy ay daw ci la buy ay daw ci euh, borom këram la nekk bàyyi leen song yu mel nii mën naa war a yére yu rëy bokk na ci yi muy indi mooy ji ak di nag baaxam mën na a jox àtte bu ko moomul ndax nag loo ko ci weer yéene jigéen dina gis di jiite daw mën naa jàpp ni islam jeex na te fekk jeexagul parce que fam ko wàññi ak suñ ko doon wàññi la bokku mën naa jàpp ni islam mën na gul te fekk na parce que fam doon wàññi suñ ko wàññi la bokku noonu nga koy toppee te xam ngeen ne àtte yu mel noonu bu ngeen laajee fuqahaa dañ koy delloo ci jigéen ji ndax kat moom jigéen ci moo gën a xam gis yi nga xamante ni moo ko gën a concerné ci ak setam wala bu dee ëmb loo xamante ni ma gën a jiiram tomb yooyu tomb la yu am solo yoo xam ni jullit ñi dañ koy faral di sàggane bu àjjuma bu alxamis ca ngoon jotee ba ñu jul ci ba noppi nit ñi àjjuma sàngale bu àjjuma sàngale nag boobu am na jaam yàlla yu ko jullit mën a commencé def te loola day sax ci guddi gi sax ci bëccëg ba muy jàng suratul kahf ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam benn riwaaya dañu képp ku jàng suuratul kër yi ci guddi àjjuma li ko tàmbale ci sama tànk yi ba fa tolloog ba kaaba ga nekk yàlla daf lay xawil ak leer boo xamante ni leer la bu lay leeral du la nital Allah loolu lu rëy la loo xam ni jaar na ci bi nga xam ni mënuñu woon suñu dër sax mu leen jàng ko nag am na beneen riwaaya dañu yàlla da koy xawil ak leer fii ba àjjuma ji dellu si waat te ñaar yëpp benn bu ci nekk bu wér la moo tax am na riwaaya bu ñu jàng ko ci guddi gi am na bu ñuy jàng ko ci bëccëg bi moo tax borom xam-xam ñu ne kon sóoru kahfi safari jàng ko ci guddi gi wala ci jàngaat ko ci bëccëg bi xam nañu ne déedéet dañ koy jàng ci gi léeg-léeg yi jëlee ko ci bëccëg bi waaye ci waaye def rek nekk na baax kon boobu jaamu yàlla boo xam ne sax na fële sax na ci ci des kon nit ki góorgóorlu jàng sóoru kahfi dafa am benn sew boo xam ni boo ko seetloo ci suuratul Kahf bi dafay méngoo waxu yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ni tàmbali suuratul Kahf bi yonente yàlla dañu ne fukki aaya yi njëkk bu ko mokkal yàlla daf lay musal ci fitne Masiix Dajjaal nga xam ni xutba wax nañ ci ay jamono ba yëpp xam nañ ko wala boo xam nañ ci xam gis nga boo seetloo ci biir suuratul Kahf bi fitne yi kéemal moo dàqoon asxaabul Kahf ba ñu génnee seen dëkk taw kon dafa mel ni saada bu ñu ñeer a waxee ne day musal nit ki ci fitna loolu kenn war na ko mën waaye bu ñu la waxee ci li indi leer te war na ko war a nangu ndax am riwaaye boo xam ne Abu Saïd al-Xudri moo ko solo benn bi ñu ne defaral ci suratul Baqara benn bi ñu ne defaral ci suratul Kahf gi nee dafa yeew aw fasam ci biir kër gi mu jékki-jékki ba mu yàgg seen fas bi fuddatoo ko tëb mu xool seen fas bi fuddatoo ko tëb mu ne xaaral daal yeew ko ndax bu jugee rek mën naa jongaat xale yi ah nee na moom mi ngi jàng suratul Kahf am riwaaye boo suratul Kahf am riwaaye boo suratul Baqara nee na bi mu xëyee mu daal di koy nettali yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ni ko malaaka yi ñoo doon wàcc ci asamaan si di ñëw di ñëw di ngay jàng saare loolu moo tiib loo fàtte moo tax muy tabakaraat kon loolu day wane ni tamit saare kon lu màgg la su ko defee ko nit ki mën na ko def ci guddi gi mën na ko def ci nit su ci bëccëg bi yeneen jaamu yàlla yi koo xam ni nit ki dañ koy taamu nag waaye booba ciy teel la mooy bàyyi ba guddi àjjuma nga jël leen ko ay laaka yoo cay julli yoo xam ne spécial àjjuma àjjuma yonent yàlla ne déedéet laa taxtassu laylatal jumaa bi salaatin wala yawmaha bi sawm bu kenn taamu ci àjjuma moom laa bëgg a woor nga xam yaa bëgg a taamu di ko woor dañ koy tere waaye nga taamu guddi àjjuma ci bi dama ci def samay affaire àjjuma àjjuma laa koy def loolu yeneen bi da koy tere lu dul liñ la digal dina def ko loolu nag ku ko xamul tamit am na ñu koy def kon loolu dañ koy tere beneen ngi nii boo xam ne ci digg yooyu ba tëj boobu moom fanaanoo ko ba fajar nga yelloowaat ko nag mu julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam déedéet bàyyi lu ngeen di julli ci man rawatina bisu àjjuma ndax képp ku julli ci man yàlla damay delloo sama ruux ma ñaanal la yàlla allahu akbar saxaaba yi daal di yéemu ci loolu ko waaw yonent bi yow loolu naka la mën a nekkee te fekk yow faatu nga bu yàgg see nga ci suuf si mu ne ko inna allaha harrama ala al ardi an taakula ajsama al anbiya sunu borom dafa araamal ci suuf yàq yonent amul benn yonent bu yàlla ma sa yónni ba tey lu dul boo demoon ba suul tey nga sulli ko mu mel na meloon keroog aada laa ba tey ndax suuf du lekk yàq yonent te loolu xam ngeen ne am na ay nit sax yu ko am nit ñi simple yu doon jaamu yàlla yàlla baax leen ko rawatina ak ay yonent kon julli ci yonent alayhi salaatu salaam lu am solo la nit ki di ko def ci guddi aaj bu mu am lim la Abdoulaye Massoud waxoon waññal say bàkkaar moom gën ngay wàññi say jiyaaba ndax ki ngay def jiyaaba yi xam nga ko war naa ko wàññi biir mooy jël di ko dikkal di ko wér di ko denc di ko compté matal naa téeméer jël ko parce que yow mën ngaa juum ci wàññi bi te ki nga koy jox moom mu war a tax a wàññi dem juum kon jël wàññi amul ci lim gis nga benn waay bu mënoon a julli ci yonent bi ñeenti junni yoon ci bisu àjjuma kenn du ko wax li nga def bon parce que dina askan leen moom la xalaat dañ koo boyal dañ koo teel nit ki fere julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yéen yàlla bi nee na ku julli ci man benn yàlla julli ci yow fukk ku julli ci man fukk yàlla julli ci yow téeméer billahi alaykum bu yàlla julli ci yow nan la lay wax yow yow yaay kan ba sunu borom di la tudd di la baxaankal di la di la di la di la yiir ak yërmandeem la muy wax mooy da ngaa def lu rëy moo tax mu defal la lu rëy lool yeneen bi ci des mooy nit bu julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam na saamu siyat yi yonente bi joxe méthode wala yàq yi nga xam ni moom la yonent bi jàngale nan ko def yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi dañu ñëw ni ko ñun de xam nañ nun lay nuyoo mooy assalaamu alayka ya rasulallah waaye xamuñu nan la ñuy jugee ci yow te ñu baax alquran moo ne yaa ayuha alladina amanu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ak ab yonenteem sax day yàlla ak malaakaam fépp ñu ngi julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ni mu màggee ay malaakaam ni ñu sellee ñoom ñëpp sax ñu ngi julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye kon yéen yaa ayyuha alladina aamanu kon lan moo tee ñi gëm yàlla ngeen julli ci yonente bi kon sallu alayhi wa sallimu taslima julli leen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ngeen julli leen ci yonente bi mbokk yi su mbir mi nekkoon mbirum tëdd ngeen ci yeew wala la génn wala mu nekk mbirum élancer wax ba saxaaba yi yeewoo dañuy élancer julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax wallahi kuy neex xel ñoo la gën a neex xel kuy jub ñoo la gën a jub kuy baax ñoo la gën a baax dégg arab moom saxu ci wax ñoo ko gën a dégg ñëpp te xam ngeen seen jamono ñoom jàng luga bayaan mantaqa amul amul woon parce que nit ki lu mu jàng day nekk mu soxla ko ñoom soxla wuñ ko woon parce que al arabiyatu fotxa loolu lañ doon laaj arab bi set bañ demee ba arab yi tàmbalee ñàkk a def nag ci lañ commencé indi ay règle yu tëdd lii mooy soxal sànq lii mooy soxal sànq dama ni saxaaba yi yonent bi ban julli lañ nan la ñuy jullee ci yow yonent bi ni tëj ba saxaaba yi naan kii maa ngi leen laaj dara ko kenn waru koo laaj sax yonent bi tontu ko nekk nit ñi li mu wax yu la yonent bi sax lañ koy évangé ni ñuy jullee ci moom yonent bi lay tëj ab diir ba saxaaba yi ci jàpp ne li ñu laaj kenn waru koo laaj yonent bi nekk booba daf doon xaar yàlla wax ko nan la ñuy tuddee ci moom lan moo tax nit ñi ba duñu xalaat ci jàngale islam wala dañoo xamut lii mbiru waxyu la jibril moo wàcc jox ko ni ñuy tuddee ci moom yonent bi jege jàng ni kan moo doon laaj laaj bi sànq mu ne mu ne ko ah nangam nangam dañuy tuddee ci man اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد nii la yonent bi gàngale keroog ci riwaaya bi donte am na yeneen riwaaya ci bi sax yoo xam ne wuute na lépp suy la boo jëfandikoo ci julli ci yonent bi budul bii maa ngi rëb ci kitaabu sunan yi xaar yeeg masaa yi wallahi yàlla na ko nangu yàlla du la ko nangul de yéen yàlla bi nee na alayhi salaatu wasalaam ku sopp ci suñu mbir mi lu ci bokk yàlla du la ko nangul léegi nag kenn ku ci nekk façon bi ngay julli ci yonent bi saxaaba yi ba ñu soxlaa dañoo laaj ñu vérifier mu ne ci est ce que digg ba ñu wax ñu ko est ce que bi façon bi may jullee ci yonent bi loolu trois boobu la am wala déet su dee moom la am continuer ndax moom la waaye su fekkee amu ko yëgal ni boo ci jaamoo yàlla yàlla du la ko yonent alayhi salaam al ibadat kulluha tawqifiyya borom xam-xam ñu ni jaamu yàlla yëpp taxaw di xaar bañ la defal la amul sañ-sañ def wala inventé tey nag xel mënul nangu abadan yàlla di wàcce diine ji ba mu mat mu ni al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan ñu dem ba seeti yooyu jeex ak wuñu salaata mu faddala dem ñu toog ba mu yàgg ak waaye ba guddi mu génn ci ñu jox ko ab salaat bu ñu jullee ci yonent yi ba ñu ban ñi wax ni moom moo gën jàng alxuraan juróomi nañu téeméeri yoon loolu wérut loolu amut loolu ay naaw loolu amul de li am mooy law kaana xayran la sabaqana saxaabu ilay saxaabatu ilay su fekkoon aw yiw la saxaaba yi ñoom ciy jiitu man li am kay mooy yonente bi alayhi salaatu wasallam ba mu fi jógee fan ci gëm loolu sax mooy da ngay lekk alxuraan ndax ak man su lakum diinakum mooy yëpp yi mat na leneen luñ ciy jotalaat loo xam ne boo ko jàngoon mu mat wàcc juróom-benni téeméeri kaar bi loolu amul ndax boo gëmee mooy weddi la aaya alquran karim ndax yëf yi mat na yéen yàlla bi nee na wallahi bàyyi ma sama xeet bi lu leen di jëriñ ba àllaaxira du leeral naa ko bii la leeral ko loolu xam boobu du am jëriñ ko wa illaa boog yéen yàlla bi nee na alayhi salaam bàyyi ma ci xeet lu leen di lor lu dul leeralal naa leen ko kon nag su wax amee mu wuuteeg waxu yonente bi alayhi salaatu wasalaam lii ci mooy gàttal boppam kon jullit yonent mi ngi doon fii jullit yonent la sax sallallahu alayhi wa sallam fi mu gën a fett ni ko nag mooy tàkkusaani àjjuma loolu dinañ ci ñëw léegi incha allah kon jaamu yàlla ni nii yoo xam na koo def ci guddi bu xëyee rek ci suba si xam ngeen ne sax la ci sunna yonent yàlla bi nee na alayhi salaatu wa salaam ci julli fajar ba noppi mu toog te barabu julleekaayam def ay askaaram ba mu mat toog fa ba jël suñu teg mu jóg julli ñaari rakka dafay mel ni ku ànd ak yonent bi saa salaam aj ak umra ba pare affaire bi man yàlla na ko loolu lu rëy te loolu gis bu nekk mën na koo am waaye boo ko taamu bisu àjjuma nag moom loolu def rek bisu àjjuma dañ koy multiplier di ko doubler kon bisu àjjuma dañu ci bu jullee fajar bu deful dara bu amul benn nit ci mën naa soog ne ba mu doon jullee ba jant bi fenk su ko defee mu julli ñaar daa koy euh, yoor yoon nga ko tuddee wala noo ko tuddee ñaar daa koy jant fenk dara def sa yoon su loolu weesoo nit ki am na ay jàngale xam ne jàngal nañ la ko li ma waxoon naan su julli ci yenn saa day ñëwaat foofu ndax na ci guddi sax na ci bëccëg li nga xamante ni moom mooy jàng soo dugg ci ñun. am na nag li salaati min yawmi jumaa fas'aw ila dikrillah ñu bari ci ñun mbokk yi bàyyee bàyyee bàyyee bàyyi ba imaam ñëw ñu doog a ñëw ñu bari ci ñun dañuy bàyyee bàyyi ba heure bu leen neex ñu doog a ñëw yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bisu àjjuma lii rek lay ki nga xam ne daa teel a dem ba waxtu wu njëkkoon sunu boroom da koy bindal tiyaaba yi ku dem ci gëstal béykat yi di leen sàkk nga xam ngeen di leen sàkk mu seere ci bàyyi ba ñaari loolu mu ñëw dafa mel ni ku dem ci gëstal génn leen nag sàkk ci bàyyi ba ñetteelu loolu mu ñëw day mel ni ku génn am kuy mu sàkk ko ci bàyyi ba ñeenteel wala juróomeel mu génn mu doog a ñëw dañ koy bindal tiyaaba yi ku génn ak ak ak ganaar sàkk nga tay ba da ngeen mu doog a ñëw tiyaaba yi bu barke benn nekk lañ koy bindal mu ni bu fekkee imaam yéeg na ca kaw min baal ba rek te kat malaaka yaa ngi taxaw ci buntu yi bind diw sàngam ñëw na heure tel diw sàngam ñëw na heure tel bis bu imaam taxawee ci kaw min baal ba rek ñoom dañuy leb seeni fooy taxaw ci déglu li xadis la bu wér imaam muslim soloo na ko abu daawud soloo na ko tirmidi soloo na waaye yow mi ñëw fekk imam ma ngay xutba moom xanaa kon yow soo tur kenn ko bind ah kay jéem kenn du la ko bind parce que dafay ñoom seen bind ma jeex maanaam ñoom ñii la ñuy teere ñoom ñoo teewee àjjuma yow kon kenn du la teere yow ah bu leen lu teere wax dëgg yàlla loolu jiitu la nga ak ak say morom demee na ci jumaa ji dinañ suñu morom yi ñii ñoo ñëwal te yow ñëwal nga mën a waaye kenn bindu la parce que ba ñu doon bind da ngaa ñëwut bu doon suñu mbir yi waa ji àddina yi rek dafa xam ñu ne la nangam jii kat dafa am lu ñuy tuuse nit ñi di leen ko jox kuñ binduwul doo am maa ngi yaakaar ni waxtu woo lii danañu fekk waaye nag nit ñi yëpp siruna xayaata dunia ah wayadaluna alaaxira dañuy gënale àddina waaye bàyyi alaaxira su ko defee yéen ca ay façon bu bu yeewu ci gis bi am na lu ñuy tuddee sangu sangu moom comme sangu set ni ngeen xamee sangu set noonu lañ xamee sangu bi mooy sangu àjjuma am na lu ñu wax yeneen bi nga ne xaq ah, la ci jullit bu nekk juróom-ñaari fan nekk na ca sangu benn yoon riwaaye day leen ñëwaat di ko firndeel muy na nekk di ñu àjjuma sangu googee mooy sangu faratay àjjuma nit ki su fekkee def na ko daa bokk ci li koy jañax ngir mu yëg yiw bi mën a nox nit ki bu sangoo àjjuma ba noppi yonent yàlla bi nee na su fekkee am na gët faratoon na ko laal bokk na ci leen wax su fekkee nit ki am na yére bu set wala bu rafet wala bu bees comme niñ koy taaroo ci ay yéen yàlla mu ne nga sol ko ba pare dem ba nga ni mooy jumaa su nit ki yegsee ci àjjuma bi suñ nit ki mu ñëw mu mu nekk naata la kenn du ko tere waxtu nit ki ñëwoon rek yow am yëg mu xool ni man naa ne naata la juróom ñetti raat wala la kenn du la ko tere foofu nawaabe yi moom la xaar dëgg la am naata la ma teg njiit la waaye da nga am aari naata la jàngoo woon tontu kër gi nga ñëw toog nga jàng ko da ngaa bëgg seen sasanam nga ñëw di ko def ba bi yegg ci nit ki su fekkee teel naa yegg ci àjjuma ji bu yeggee mu toog yéen ci yàlla bi nee na xar béw bay ñëw di jokkat nit ñi euh, yeexu la yegg ci waxul imaam buy bu déglu surtout li am solo mi ngi doon ci àjjuma ñu xutba la déglu est-ce que xam ngeen ni àjjuma ji ñaari laa koy la war a doon borom xam-xam ngir xutba ji day jël place ñaari rakk yi yéen yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci imam di xutba muy wax kooku mi ngi mel ni mbaam muy jël sax ko sëf ko kaasay kaamil ba fees di ko dóor di ko dóor ba ñax ñu yóbbu ko kaamil ne wàcce daal di sànni mbaam mu dem yoonam moom xam si xam si def sax yàlla mbaam moom xam si yàlla ci loolu kon ci imam bi xutba ngay wax yéen a bokk benn àtt ndax imam bu xut buy xutba nit ci wax ay imam dana yàqu wala borom xam-xam yi jiwee nañ ci am nañu ne ku ko def sa ajuma day yàqu da ngay julli tubaab ci tubaab am nañu ne déedéet ajuma du yàqu waaye yoolu jumaa nga dul am te boobu mooy diwén la yoolu jumaa doo am mooy lan mooy daal comme julli nga ci nga dañ lay compter julli ci tubaab waaye mboolem yi doon lim lépp ci gëneelu ajuma yi nga faral di bàkkaar ci lu aju yëpp du am Allah ko dul ay istisnaat imam bu doon ko yàgg mu am lu neexul wala laaj mu ni hey jiw waxaat moom kooka ne ko wuyu ndax loolu tax na yonent bi def na ko alayhi salaatu wasalaam beneen bi ci mooy su fekkee ni imaam mi ngi xutba ñu gis loo xamante ni ak lor na loo xam ne mënees su koo nekk lor ko waaw su boobaa kat loola kat mën naa ba di yàq la nga xamante ni moom mooy euh, euh, jub xutba yi di kii ni kii déglu déglu xutba su ko defee déglu boobu yéen yàlla nee na soo ko defee ban noppi wax boobu julli nga ànd ak imam julli ci lañ lay doog a defal kafaare bàkkaar ba ajuma bi dellu su ko defee nit ki bu yegsee ci àjjuma ji mu déglu déglu xutba ji malaaka yi comme ni ñuy teewee di ko déglu loolu daf koy yokkal la nga xamante ni mooy ay ngëneelam ak aw yoon su ko defee bu imam jullee ba noppi nag nga àndal moom ci julli nga ba noppi def ko baax defar ba noppi nag dem ci ñibbi nag benn malaaka yi bind nañ sa suñu yóbbu sa bi moom mooy garanti nañ ne yow àjjuma ci jël danañu jéggal say bakkaar suutul kër bi yeeg ak yi nga xamante ni maanaam foofu fay doo amee waaye bu dul foofu kenn benn waaye bu ñëw rek daal ni du fay toog yéen sax dana daal di koy xool ni ko yaa ngi loolee pour moo tax borom yi ñi wax naan ku dikk ci àjjuma fekk imam di xutba doo julli déedéet doo wér da ngay julli yéen bi loolu la jàngale am loolu la tudde tahiyatul masjid moo xam imam yi nga xutba xam imam xutba wut lu mu ci man da nit bu duggee ci jàkka dafa war a dugg julli ñaari rakka yi ñu tuddee tahiyatul masjid yéen bi alayhi salaatu wasalaam taxaw di xutba ba mu benn kaw kaw ci biir bële daal di dagg ko fële xamul lu xew mu ne yéen sax lan du jaage jee tukki bi yàqu na ñu ñaa ngi bëgg a jee ndax taw lu xaw a ba àggal yonent bi daal di yëkkati ay loxoom ñaan yàlla taw balaa moo wàcc rek taw bu soo am na ci riwaaya bi taw ba continué di taw samedi muy taw dimanche muy taw altine muy taw ba àjjuma ci dellu si waat am na riwaaya bu ñu waate moo dil so am wéen deen waaye moo ñëw mu ne yéen bi ñaanaatal yàlla fi ne nit ñaa ngi bëgg a dee donc maa ngi dagg suuf si jur gaa ngi dee man dañoo xam nañu waxaat ah, parce que lee day ko war a ko waral ñu taw ko rek ko waral yéen bi daal di reetaan reetaan ah yéen ko doon ñaan rek mu ñaan ko ñëw la moo tax borom xam ni kon imaam sañ naa ñaan ci xutbay juma waaye ñaan yëkkati sa loxo comme niñ ko taamoo mi ak ay baada yéen bi ni mu ko doon def mooy ba su ko defee suñu jullee ba noppi nag daal di dem nag garanti yii ñu la wax ak yëpp daal di commencé am foofu mu profité ci bàyyiwaale ah ci gan léeg-léeg dinañ am imma yi la damaa xamul ci nit ñi la mooy sàppe ci boppam la ca lislaam jàngale mooy jàkka day beneen su paree ñu doog a suuf ci fa nga xamante mooy ja euh, nu mu tudd jàkka yi jàkka yi ngeen dem ci Dakar la ngay gis nit ku ñëw mu seet ba ko neex rek mu daal dee loolu julli loolu nit ku julli amul julli yéen yàlla laa salaata li mun faridil xalfa ka seet ba ko neex mu dem toog ko mu julli yéen yàlla yow am na julli yow sàrt si rek da ngay bokk te bu ñee sàrt si mooy la sëpp ci jàkka kon buntu boobu nit ñi nañ ko xam lu naan nit àll sàng wallahi Abu Hurayra mas na ñëw di julli si mu dégg yéen bi ne eh yéen toog leen fekk man ne kat naaj wa mu toog kat naaj wa ba ñax doy xel yéen bi ñu ko yow boole woon ba ñuy jënd ñoom mu ne ko ñëw naa kat loolu tax a ñàkk mu ne ko damaa dégg toog leen ma xaw ma fu toog leen toog leen ma daal toog leen kon dégg ndigal bi boobu la yeggoon ci nit ki def santaane boromam moo xam naaj na moo xam kees na lu mu ci mën doon nga xam ne la ñuy am ci yiw moo ko li ci mujj nag mooy am na ci argument ci xarit wax mi ay muslim yéen yàlla bi nee na waxtoo na ko woo xam ni lu ci ñawaay ñaan yàlla yàlla nangu la allahu akbar ana borom aajo yi ana borom feebar ana borom soxla yi ana ñi noppatu ana ñi jël seen alal ana ñi sàcc ana ila axiri ana ci bëgg ngëm yàlla ana ci bëgg xam Alquran ah, aaja jooju ñaan suñu borom suñu borom may la ban waxtu la nag alxaafis ibnu xajar ba dara ci téere bu mag boobu sax alxaar bi fatxul baari bi wax na ko lu ëpp ñeent fukki wax ñi naan lii waxtu la ñeneen waaye wax yëpp ñaari wax rek moo ci dëgër te benn bu ci nekk dëgër la doon te benn laa gën a dëgër ba ca des bi ci nekk mooy bu imaam taxawee ci kaw minbar bi di xutba waxtu boobu lu ko waay ñaan yàlla yàlla na ko loola moo tax nag nit ñi bu imaam taxawee nit ñi bu imaam taxawee ba soog soog bi ñu jéem a def doon ñaan déedéet soog bu dugg amul lu fay wax foofu amul lu xanaa nit ñi bëgg def ay askar def ko ko waaye lu fay wax amul bu ko defee bu imaam toogee gis nit ñi yëkkati seen loxo di ñaan déedéet loolu amul ci lislaam amul de loolu ak jaamu yàlla ci jaamu yàlla kenn du ko def lu dul da nga laaj dëgg la waxtu woowu imaam di toog ci kaw minbar bi am na ci borom xam-xam ñu ne ku ci ñaan yàlla yàlla nangul la yéen ñi borom xam-xam ñu ne ginnaaw takkusaani te boobu mooy li gën a wér ndax rot na ci hadis boo xam ne mi ngi ci Sahih Muslim yonent yàlla bi dafa préciser heure bi mu ne ak saatul axira baada al asri mooy heure ba mujj ci ginnaaw takkusaan kon nekkatu diggante cinq heures six heures waaye boo jógee six heures bi ci diggante bi gën a jege ci nit di digal soo nit ki lu mu def def mën na ko bàyyi mu dem ñaan yàlla wallahi ay doomu aadama yu bari yoo xam ne du ñu ay saxaaba du ñu ay taabiun bal ci suñu jamono jii la ñuy dund tajriba tajriba nañ mbir tajriba mooy essayé mbir mi gis ni ndekete effectivement nit ki da ciy ñaan yàlla mu nangu loolu ay nit yu bari bari bari def nañ ko ci jamono bi ñuy dund kon loolu li may nit ñi courage xam ni du du tàggee ak borom xam-xam wala nit ku jàng wax déedéet nit ku ñëpp la kàddu yàlla may dellu ko loxo kenn kenn ku nekk bu sellalee xanaa leen xam nga ma waa nekk di jaaba nag moom nit bu fekkee li muy nekk dafa xaraam bi ñëpp ak loolu nga yàlla ko nangu su fekkee ni façon jaamu yàlla yi nga jëfandikoo ci ñaan gi yàlla ko yonent bi jàngale ko loolu day xaj bu li nga xamante ni moom mooy ñaan su ko defee kon ginnaaw tàkkusaan joojee nit ki lu mu doon julli ci yonent bi sallam na ko dolli waaye ñaan ci mu def bokk ci waxtu woowu lu man kon lii bu dajee mbokk yi yaakaar naa ne vision boobu boo xam ne buñ la ko garanti ne fii ba àjjuma bi déllu ñu yaa ngi ci daal bi bu àjjuma bi kat nga julliwaat bu àjjuma dikkee nga julliwaat maa ngi yaakaar ne booy pass dana fekk yóbbaale nga ay saako yu fees dellu ci siyaaba maa ngi jeexal ak yonent yàlla xalis bi mu wax ni la yantahiyanna aqwaamun an wadaihim aljumaa aw la yaxtiman allahu ala qulubihim am na ñoo xam dañuy tàggat duñ julli ci jumaa ay nit dinañ bàyyi toog jumaa jot ñu wala julli ji wala buñ ko déggul yàlla nee damay kaste seen xol yi ba mu nekk xol yu bon ku leen waar duñu waaru ku leen fàttali duñu fàttaliku te seen xol yi duñu nekk xol bu gëm yàlla beneen bi waaye mu ne summa rek ak kurum dañ nag rapidin dañuy bokk ci yéegee ñi nga xam ne ñoom ay xarxati bay la yàlla yi considéré kon ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala lii nu dégg ba ñu nekk lu ñuy dégg rek waaye mu nekk lu ñuy xam waaye sax wattu sa di ko jëlee yàlla yàlla defal ni yiw wu yi nga xam ne moom la jege ci su àdduma rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir اللهم انصرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت تعالى نفسه وصلى الله وسلم على رسول الله وآله